al madina travel salum jidda sen info international ak tijaniya in america si njiital suñu imam muhammad muntaha sakho ñoo may émission bu mag bi bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin alfatixi alxaatimi annaasiri alhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim gannaaw sunanul wudu sunanul wudu wa mustaxabaatuhu inda assaada almalikiya rahmatullahi alayhim ñu ànd tey inchaa allahu jàng sunanul wudu inda assaada alxanafiya al axnaaf dañu waxoon séddale sunna ñaari xaaj sunna mu akkada mu yore maanaam waajib mooy loo xam ne dalil vanni la am dañ koy yéegal ci farata ci wàllu jëf waaye aji baam bakkaram du toll ni bàkkaaru ku ba farata ndax fas ne waajib farata la warut te ki bàyyi waajib it ci ahnaaf yi deesu ko mbugalee safara waaye dees koy xañ ramm yonantu bi sallallahu alayhi waajib boobu nag moom lañ wax ne mooy sunna buñ feddali beneen xaaju sunna bi mooy sunna buñ feddali wut mu yore maanaam mustahab ak mandub aji defam des koy yool waaye aji baam deesu ko mbugal bu ñëwee ci njàpp daañ ci am sunan muakkada daañ ci am sunan xeyru muakkada sunan muakkada yooyu bokk na ca ni ko boroom alfiqhu ala almadahibi arbaati ci jukki bu njëkk ba xaajub juróom benn fukk ñaar jëm juróom benn fukk ñett jëm juróom benn fukk ñeent dana ci tudd tasmiyatu muy wax bismillah danañ ca solo sax riwaaya bu xadis wax ne bismillahi alazim walhamdulillahi ca solo riwaaya bismillahi rahmaani ci ahnaaf bu waxoon laa wala alhamdulillah wala ashhadu an laa ilaha ñoom tasmiya duñ ko tuddee sax bismillah dañ koy tuddee rek tudd yàlla waaye waroo wax bismillahi eh, nécessairement donte bismillahi nag <clears throat> moo ñëw ci eh, xadiisu sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw mhm. sunna ya xaslul yadayni ila rusxayni mooy euh, kuwaa yi rek raxas ñaari loxo ba ci tekki njarayo bokk na ci sunna ya inda al rahmatullahi alayhim al madmadatu ñaari sunna la mu akkadataani inda al ndiku ak sorax ndiku bokk na xalil baaraami loxo ak xalil baaraami tànk bokk na ca baamtu raxas cër yi ñuy raxas ñetti yoon bokk na ca masxa mboolem bopp ndax ñoom masxa bopp bi yépp duut farata rubu bi rekk mooy farata boo masaaxee mboolem bopp bi nag def nga sunna bokk na ca masxa ñaari nopp ndax ñoom it defuñ masa ñaari nopp farata ni ko xanaa bilatu def ñoom ñook jumhur ñoo ci ànd bokk na ca yéene ñoom yéene defuñ ko muy farata sunna lañ ko def dinañ ko euh, tàqale léegi ci kanam <coughs> bokk na ca toftale toftalee faraid yi raxas kanam teg ca ñaari loxo dégg nga ba ca conc bopp sooga raxas ñaari tànk muy toftale farata yi ni ko alquran tuddee faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayn bokk na ca gaaw moom la ñuy wax muwalaatu gi nga xam ne farata la ci maalikiyatu yi ñoom sunna lañ ko def bokk na ca socc bokk na ci suna mu akkada yi bokk na ca it bu nga <coughs> eh, maana soccu sunna mu akkada la waaye ñoom eh, ni nga xamee ne fuqahaa yu bari dañoo sopp garabu ngaw muy arak ñoom gisuñ ne luñ ca luñ ca gënal la wala gisuñ ne luñ ca chartaal donte kenn ci gisuñ ne luñ ca chartaal la ñoom danañ tudd sax geneen xeetu garab am na yoo xam ne nag ñoom dañoo wuutee ci ne ndax ci sunna mu akkada yi la bokk wala bokkut ci muy lu mel ni booy raxas say tànk nga téye ndab li soo loxo ndeyjoor di raggee loxo càmmoñ ak tàmbale ci boppi baaraam yi wàcci booy raxas tànk yi wala booy raxas loxo yi ndax comme yàlla def na ilal marafiqi ak ilal kaabayni ak tàmbalee ci njël bopp booy masaa ak galax ndikook jotal gañ cee wax ne nanga ko def lu dul nga woor ndax dafa bokku ci sunna mu akkada yi wutee nañ ci bokk na ci it teg ndab maanaam <laughs> eh, eh, ndox mi nga xam ne moom la kii sorax di sorax di ko ñoddi ak nooyam ba mu yegg ca kaw gën a kawe ca bakkanam ndax loolu war na wala da ngay dugal ndox mi rek mu yore maanaam sarax ndiko ndax loolu sunna la wala du sunna mu akkada ndax sunna mu akkada la wala duwut ko wutee nañ ci ñàkka bëril ndox mi ci anamuk yàq loolu tamit ndax sunna mu akkada wala euh, sunna xeyru mu akkada la ndax man duub la wutee nañ ci baamtu raxas ñaari loxo yi ànd raxas euh, xasabu yi euh, loolu mooy lan maanaam bi ngay tàmbali njàpp mi xam nga raxas sa ñaari loxo ba ci sa tikk njara sunna la woon léegi nag booy raxas-raxasuk farata gi baamtu gi ngay baamtuwaat foofu boole kook raxas xasabu yi ba ci conc mi ñoom gisuñu ne farata la ndax sunna mu akkada wala du sunna mu akkada lañuy wuutee yii ci gàttal moom la borom eh, téere ba al fiqh ala al madahib tudd ci sunna yi nga xam ne ñooy sunnay njàpp inda saad al ahnaaf rahmatullahi alayhim bu dee borom téere kitaabul ibadaati ala al madhab al xanafi moom dana tudd fukki yëf dana tudd yéene ne sunna la ndax ahnaaf yi jaamu yàlla yi <clears throat> dañ koo séddale diggante jaamu yàlla joo xam ne jaamu yàlla la minal maqasid ak jaamu yàlla joo xam ne minal wasail wala bidaayaat la aw minal bidaayaat maanaa jaamu goo xam ne moom lañ jublu niki julli ak woor jëmmi jaamu gi moom lañ jublu moo tax yéene ca farata la walla jaamu goo xam ne moyen la pour yegg ci geneen jaamu lu mel ni ak jàpp fokk nga jàpp mën a julli ñu ne kon googu du jàpp gi lañ jublu waaye lañ ca war a def moo tax lu mel ni njàpp ak euh, yi yore attan ci laabak euh, sangu wala laabak raxas sobe yooyu yëpp duul loo xam ne dañ caa war a euh, yéene waaye yéene ca sunna la bu ca borom yéene am ca yool looloo tax ñoom defuñ yéene ci njàpp muy farata dañ ko def muy euh, sunna bu dee tiim nag ñoom dañ ko def ne euh, farata la ndax suuf suuf suuf ci cosaan du loo xam ne lu mën a laabal la remplacement la waaw ñaareel bu mu tudd mooy toftale mooy booy toftale diggante cëri euh, raxas kanam soog a raxas loxo soog a masa bopp ni ko indee waaye ñu duwul farata ndax waaw yi ci laay ji firiwul ne dañ ko war a toftale bu fekkoon ne dafa indi faa wala mu indi summa ñu ne kon dañ ko war a toftale te ñu ne àlli yu wax na ne faalewuma su may jàpp ayut euh, gannaaw matal naa sama njàppuli rek cër bu ma njëkkee ayut ñu ne ibnu mas'ud radiallahu anhu wax na ne laa sa an tabda bi rijlayka qabla yadayka nga eh, njëkkee say tànk balaa nga raxas say loxo mu ne dara new ci ñu waxaati tamit ne xikmaay njàpp lañ ci jublu rek mooy ak cet ak taar ak leer waaye du tar du toftale ga eh, ñu ne li ñëw ci xadis di wane toftale firiwut fardiyatu waaye sunniyatu la waaye waxi jumhur nag dëgg-dëgg moo gën <clears throat> wér tegtal bi ci des muy euh, tasmiyatu wax bismillahi rahmaani rahim wala wax turu yàlla wala bismillahi al azim walhamdulillahi ala diin al islam ak lum ci mën a doon rek amal nañ ko tegtal ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ci xadis la salaata liman la wudua lahu wala wudua liman lam yadkur isma taala alayhi donte xadis ji am na yuñ ca wax waaw bu dee tartib bañ wax sànq boobu nag ñoog yootu yi ñoo ceem de ndax malik yootu yi defuñ ko farata sunna lañ ko def mhm. raxas ñaari loxo yi ba ci rusxey ni rusxu moo xam ci tànk la wala ci loxo mooy la takkale bu dee ca tànk la tàqale diggante e, yeel ak ndëgu bu dee ci loxo mooy la tàqale diggante xasabu ak tenq ndax yonentu sallallahu alayhi wa wax nañ ne istawkafa halahan e, Seydina Usmaan it addisam tudd na ca e, loola wax ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu tudd yonentu bi raxas na kafayhi halaha marratin ba hadis ja jeexee mu ne man tawaddaa wala ba njàpp la jeexee mu ne man tawaddaa wudui haadha thumma qaama fa rakaa rakaatayni laa yuhaddisu fihima nafsahu gufira lahu ma taqaddama min dambi bu dee raxas ñaari loxo ci kuy soog a yeewu nag nekkam di sunna moo gën a feddaliku ndax yonentu sallallahu alayhi nee na ku yeewu ci nelawam bum dugal loxoom ci jàppukaayam fekk raxasul leen ñetti yoon ndax fu loxo yafanaan mu tudd juróomeel ba soccu sunna mu akkada la indal ahnaaf ndax yonentu sallallahu alayhi la amartuhum bisiwaaki inda kulli wuduin danañ moom tudd na borom kitaab alfiq fiq ak sorox dafa mel ni benn sunna la leen def waaye mu indi ca tegtalit ndax yonentu jàpp na fa madmada wastanshaqa wastanthara min halaahi ghurafatin ghurafatin sallallahu alayhi wa waaw juróom-ñaareel ba moom mu tudd taxlilu lixyati alkatha dégg nga xalil sikkim bu tal xalil mooy Eh, dugal sa eh, baaraam yi ci biir karaw yi dégg nga eh, min al asfali ila al ala dégg nga mhm. taxliluhu na malikiyatu ñoom bu dee karaw la ida min taxtiyal juddo waxar bu dee sikkim bu woyof la moom dañ ko waral bu dee sikkim bu tal la nag waraluñ ko ñoom nag axnaaf yi dañoo waral Euh, dañ ko def sunna mu akkada ci bu dee sikkim boo xam ne euh, bu tall itam te xam nga sunna mu akkada ci ñoom mooy waral ak xalil baaraam yit it mooy dugal yi baaraam ci diggante yele baaraam ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko muy jàpp fa xallala asaabiahu mhm, sallallahu alayhi wa sallam wax na it ci beneen xadis moom yonentu ne ida tawaddata fa xallil bayna asaabici yadayka wa rijlayka bu dee xalil baaraame loxo ci maalikiyatu nag moo gën feddaliku xalil baaraami tànk ñoom xalil baaraami tànk dañ koo def euh, ci mustahabaat xali taxliluhu asaabian qadami waaye bu dee baaraami loxo moom dañ ko waral waaw bu dee axnaaf yi nag sunna lañ ko def maanaam sunna mu akkada la waaw ci ñoom donte sunna mu akkada waajib la waaye waajib gu yeggul ci dayo farata la mu tudd tamit istiaabu rasi bil masxi marratan waxidatan niñ ko tuddee woon fële ndax masa bopp bi yëpp farata waaye boo boo masaaxee yëpp am nga sunna ci axnaaf yi mu tudd tamit moom tasliisul xusli ndax xadis ya ca rot muy ñett ñettal euh, tasliisul xasli ngeen baal ma ñett ñettal raxas yi mu tudd tamit euh, albadaatu bil masxi min muqaddami rasi booy masaasa bopp nga tàmbale ci njëli jëm ca ginnaaw euh, mu boole ko ci mustahabaat yi ni nga xamee ne malik yotu yi dañ ko boole ci mustahabaat yi maanaam defuñ ko sunna Euh, mu akkada mhm. mu tudd tamit li ñoo tuddee masxul udunayni waaw donte ci ndoxum bopp mi ndax yonentu sallallahu alayhi wa wax nañ ne masaana boppam boole kook noppam alayhi salaatu wassalaamu mhm. mu tudd tamit dalku ki nga xam ne maalik dañ ko def farata muy ragg waaye ahnaaf yi ñoom dañ ko def sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa jaala yaqulu hakada eh, ba pare muy ragg dégg nga mhm. yaduluku sallallahu alayhi wa sallam mu tudd it albadaatu bilmayaamini tàmbalee ndeyjoor yi njëkk càmmoñ yi ci raxas loxo ak raxas tànk yi ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na ida tawadda'tum bi mayaaminikum nday Aysatu mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yujibu yujibuhu tayammunu yujibuhu tayammunu fi fi tanaulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi shanihi kullihi sallallahu alayhi wa sallam ah, uh-huh. kaana sallallahu alayhi wa sallam yujibu kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu tayammun ndax ah, uh-huh. um, loolu dafa am solo ak tayaamun ndeyjoor ndeyjoor yonentu ku ko bëggoon la nee na ci dàllam euh, dégg nga bu daan euh, peñeeg bu daan euh, njàpp jàppam ak waaw ak ci léppam rek sallallahu alayhi wa liñ tuddoon fa lay muy albadaatu bil xasli min ruusil asaabii njëkkee boppi baaraam mi loxo yi ak boppi baaraam mi tànk yi soo ko wàcc ci takku njare walla wala wala ca doojoor ya bu dee tànk yi la ndax alxuraan li mu wax ilal mirfaqayni ba ca cooñ ci ñu wane ne ko mu wane ne kon fële lay ñu dalee yem fii loolu ci sunna yi dañ ko boole euh, moom borom téere bi tudd na lu borom fiqh ala al madahib al arbaati tuddut muy masxu raqabati dégg nga waaw maanaam masxu raqabati euh, masxa baat loolu nag euh, maxallu xilaaf la bayna fuqahaa yi waaye ñoom boole nañ ko ci sunna yi ndax ñu ne xadis ba wax ne masu raqabati amaanun min al xulli yowma alqiyaamati al xulli euh, euh, kon nag ci gàttal yii nii mooy sunan yi nga xam ne ñooy sunanul wudui inda asxaabi euh, madhabi abi xanifata rahmatullahi alayhi hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama ali maladu nas fi dinin wa dunya badhulun duna manin bin nawali shuja'un fi ikhtiyadin wa ightinamin ila al-islam ma tarkil muhali jawadun ICFA Institute Al Madina Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bi